ñu ne waan abi zeydin jël nañ ci abu zeyd usaamatu bun zeyd usaama doomu zeyd soppi benn tudd woon sallallahu alayhi wa sallam bun xaarisa doomu xaarisa mawla rasulillahi mbaa yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa xibbihi te soppe yonent bi wam na xibbihi doomi soppeem ontu da ko bëggoon bëgg bàyyam radee yàlla na gërëm allah yàlla anu maa ci ñoom ñaar qaala usaamatu nee na arsalat yónnee na bintu nabi doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jigéen yonent dafa amoon doom ju jigéen mu yónnee ci baayam na ko inna nii naka sama doom bu góor bi qad ihtudira mu ngi sukuraat yonent dafa amoon doom bu jigéen doom bu jigéen boobu am doom bu góor mu mel ni luy génn àdduna mu yónnee ci baayam ne ko na ñëw ndax sama doom mu ngi sukuraat doom bu jigéen boobu kan loon ak ban doom moo doon génn àdduna ñu ne doom bu jigéen bi eh, Zeynabu bu woon doomam ja doon génn àdduna mooy Ali doomi Abul As Abul As moo doon borom këram bu ko defee Zeynab bu yónnee ci baayam ne ko sama doom Ali mu ngi sukuraat wala nga xam-xam ne déedéet du Ali kat ndax Ali moomu nee nañ dem na ba bay waaji gént bay waaji man mu kalaf te amul fatu makk sax yonentu porté woon na ko kon kooku nekkul xale ñu ne Zeynabu waaye du doomam Ali doomam Umaamatu la Umaamatu Umaamatu moo doon sukuraat Zeynabu yónnee ca baayam ne ko kaay teew sama doomam génn àdduna Umaama doomu Abul Abul borom këru Zeynabu waaye xadis bi doom bu góor la wax te umaamatu jigéen la woon te li ñu jaaxal mooy umaamatu moomu dund na ba mata sëy imaam Ali moo doon borom këram ñu ne kon du kooku ñi ne roqiya la woon ci doom bi ñu wax Abdullahi doomu Ousmane ibnu Affan kooku moom ci ndaw wala génn àddina ñi ne Muhassin la woon doomi Fatimatu ak Ali ibnu Abi Talib kooku it ci ndaw la génnaat na kon neel Fatimatu moo yónnee ci yonent bi ngir mu teewee doomam ji nga xam ne moo di Muhassin doomu Ali muy sukuraat ñu ne déedéet Ruqiyatu moo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu teewee doomam ji wax Abdullahi doomu Ousmane ibn Affan mi nekk ci sukuraat ñu ne Zeynabu moo ci yonent bi sallallahu ngir mu teewee doom ji ñu wax Ali doomi Abul Aas mi sukuraat ñu ne déedéet Zeynabu la waaye doom jooju Umaamatu la woon doomi ah, dégg nga Abul Aas lu ma xew daal arsala yónnee na bintu nabi doomi yonent bi sallallahu alayhi doomi yonent bu ne ko demal si yonent bi ne ko inna ibni naka sama doom ji xadex tuddira muy sukuraat amaana muy Ali fekk ba yonentu ñëwee yàlla dafa def xale bi mujj mucc ba màgg ndax xadis bi daf ne mu ngi sukkuraat rek waxut dee na loolu mën na ci am waaye nii xadis bi waxee daf mel ne bi dafa génn àdduna loolu lay niru arsala yónnee na bintu nabi doomu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ju jigéen ca yonent bi ca baayam ne ko na ñëw teew ndax inab nii na sama doom bii xadex tuddira mu ngi sukkuraat fasadna ka e teweño ban dawli ñiwee si yonente bi sala sallam ne ko ha ah, zeynabu de neena walla roqiyatu de neena walla fatimatu de neena domam jaañi sukkura hat nga teewe ko farsala yonente bi yonne ci moom yonente bi demut mu yonni ndaw yuqriwu di ko jàngal assalaamu nuyo yonente ne ko boo demee nga nuyul ma ko wa yaqulu yonente mu naan ko wax ko ne ko inna lillahi naka ñeel na yàlla ma axasa lam jël wala hu ñeel na yàlla ma aata lam joxe wa kullu shay'in te lépp lu nekk xendahu fa yàlla bi ajalin mu ngi ci diir musamman buñ tudd lu nekk rek am na waxtu bu waxtu bi ñëwee du xaar benn minute kon fal tasbir ne ko mu muñ wal taxtasib te mu xaar tiyaaba ci yàlla yonentu yónnee ci doomam ci ne ko boo demee nga nuyu ko te ne ko yàlla moom moom li mu jël moo moom li mu joxe lu nekk dafa am waxtu bu waxtu ba jotee dorom bu benn minute dafay xew kon na muñ ndogal yàlla te yaakaar ne yàlla dana ko fay tiyaaba ci muñ ko lii la yonentu wax doom ja demut doom ji lii doyit ko ndax toll na si jafe-jafe goo xam ne foo bàyyam teew faarsalat mu yónnee waat ilayhi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Zeynab bu la wala Roqiyatu wala Fatima mu ne déedéet damaatal ci moom tuqsimu mu ngay gëñ ale yi ci yonent bi la yatiyannahaa dana ko dikkal mu ko demal na ko mayuma ko ngant neel sama bàyyi foo mu teew maanaam teew gi moom mënul ñàkk ne ko faw mu teew neel sama bàyyi foo mu teew li ma waar baax na li ma digal baax na dégg naa ko mhm. waaye jëmmam laa soxla mu ñàkk teew na ñëw moo tax nit bu nekkee ci njàqare dafay soxla yenn jëmm yi bu nit demee ba tollu foofu boo ko waaree mm, teewut mu la soxla demalal sa bopp mhm. ndax waare ga doyu ko ah. nit léegi-léegi dafay soxla ku nekk ci wetam di ko defal mhm. ak lu mu mën a mën a mën a muñ situation yi léegi-léegi mu ëpp ko doole ba foofu nga nekk ci wetam di ko defal mhm. tax mu yónnewaat ci yonent bi ne ko na ñëw te dogu ci nag ah ba yonentu xamee ne doom ji bëgg mu teew fa xaama mu jug moom yonent bi ànd ak ñenn ci ay sang wa maawu ànd naag moom Saadu bun Ubaadata moo tax kilifa danay dem fenn di ànd ak ay nit yonentu ba muy jug dafa ànd ak Saadatu Saadu bun Ubaada ak Muaz bun Jabal ak Ubay bun Kaab ak Zaydu bun Saabit wa rijaalun ak yeneeni góor sallallahu alayhi wa sallam yonentu jug ànd ak Saadu Muaz Ubay Zayd bun Saabit ak yeneen i góor radiyallahu anhu mel na yàlla gërëm leen ñoom ñëpp yonentu dem nag ca ndaw sax mooy doomam ja ba mu demee xool faru fia ñu yëkkati ila rasulillah jëm si yonentu yàlla bi si alayhi wasallam yu xale ba kon xam nga góor la yonentu dem ñu yëkkatil ko xale bi fa aqadu mu toogloo ko fi xijiri ci wetam yonent bi toogloo xale bi ci wetam wa nafsuhu te bakkanam te qaqahu mu ngi buddeeku maam nooy gaa ngi nooy ca kaw mu mel ne rofa gay gël fa faadal mu bëbb ay naaxu ñaari bët yi yonent ba mu xoolee xale bi ci àll boobu rek mu commencé jooy moom moo doon digle mbir mi xewee doon digal ndaw si ne ko muñal mhm. mbir dem xool xale bi dégg noxi gaa ngi Eh, dégg nga wa nafsu bakkanam taqa xaw mu ngi buddeeku maanaam mu ngi yëngatu bu baax. Mm-hmm. fa faatal mu bopp ay naaxu ñaari bët yonent bi mm-hmm. ko defee yonent bi daal di jooy ah affaire bi nag jaaxal saadu. Mm-hmm. gis na ne yonent moo ko wax muñal lan moo tax muy jooy. fa qaala mu wax saadu saadu yaa rasulallah yow yonent yàlla bi maa haza jooy lii lan la. Hmm? lan moo tax ngay jooy. fa qaal yonent ne ko haadihi jooy yii onqañ yii rahmatun yërmande la jaalaha def na ko allahu yàlla taala kawe na fii qulubi ibaadi yi ci xoli jaamam yi wa fii riwaayatin beneen nettali mu ne jaalaha def na ko allahu yàlla taala kawe na fii qulubi man shaa ci xolu ko ko neex min ibaadi yi ci jaamam yi yonent ne ko jooy yi du jooyu njàqare maanaam jo nekkul jooy yoo xam ne bañ ndogalu yàlla la ah kay nangu naa ndogalu yàlla waaye yërmande la yërmande nag yàlla koy def ci xolu jaam bi ku neex te wa innama yarhamu naka dana yërëm allahu yàlla min ibaadi yi ci jaamam yi arruhamaa a way yërëmaate ya ñiy yërëmee ñoom la yàlla di yërëm waaye ku xolam amul benn yërmande kooku xamal ne yàlla yërëmut ko mhm. moo tax foo dégg ku ne man amuma yërmande yàlla yërëmut ko ku yàlla yërëm day bëri yërmande ci jaam yi comme mooy mandarga ne yàlla yërëmut kon mbir dana xew nga muñ ko muñ bu rafet nangu ndogal yàlla waaye buy ronqañi di wadd ci bët yi doo ci man dara ndax yërmande gi nekk ci ci biir xol bi loolu dal bi kon muñ ak jooy jotee wuñ dara mhm. maanaam jooy tekkiwul ne muñoo mhm. mais jooy yërmande da koy waral yaram bu daw ak yu demee noonu te loolu yëpp xeet xeetu man la dana waral nit ki ronkañ yi tuuru waaye gëm na yàlla nangu na ndogal mhm. muttafaqun alayhi hadis bi hadis bu ñu bu ñu dëppoo la maanaam ñëw nañ ci Buxaari ñëw nañ ci muslim wa maanaa taqaaqaw mooy tataxaraku bakkan bi dana yëngatu wa tattaribu muy dóorante kuy waa ji gën a àddina ni muy def beneen xadis bi nag moom bu xaw a gudd la waan Suhayb bu jëlee nañ Suhayb bu radiyallaahu anhu yàlla ko yàlla gërëm anna rasulallah ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla doon xew te musal ko xaala wax ne la xadis bi ñu ngi koy Suhayb mu ne yonent bi nee na kaana nekkoon na malikun buur fi man kaana ca ña nekkoon qablakum di leen njëkk njëkk xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon buur wa kaana nekkoon na la hu ñeel buur bi saaxirun njabarkat maanaam xeet yi jiitu yàlla dégg nga dogaloon na fa ab buur ci xeet yooyu dafa am benn xeet ci xeet yi jiitu yonent ne dafa am buur bu nekkoon foofu mhm. buur bi ne dafa amoon njabarkat bu koy njabaral parce que buur bi gëmul yàlla baaxut ay njabarkat ñoo ko wër mhm. fala maa kabira ba njabarkat gi magee xaala mhm. wax na lil maliki ñeel buur bi ne ko innii nag man xat kabirtu mage naa fa baas hebalal ilaya jëm ci man xulaa man xale o allimhu danaa ko jàngal a sexra njabar buur bi Mm-hmm. dafa amoon njabarkat bu koy njabaral njabarkat bi dem ba màgget wax buur bi ne ko man de léegi damaa màgget xebalal ab xale mu ñëw ma jàngal ko njabar gi ngir mu wóotuma <laughs> gis nga ñu bon ñi sax ñu ngi bëgg la nekk ci ñoom buñ demee àllaaxira buñ ko yóbbaale nañ ko fi bàyyi ñu am xalifa bu leen wutul ci loolu kon nag ñu baax ñi war nañoo fexe mbaax gi nekk ci ñoom waruñ ko yóbbaale àllaaxira nañ ko bàyyi ci nit ñi ndax buñ demee mbaax googu mën a continuer yow bu dee doo fi sax lépp lu am ci mbaax war nga ko yulli jox ko doomu aadama yi balaa nga fi jóg ku dul sax rek war naa fexe mbaaxam tuxu ndax waxtu wu ne mën nga fee jóge loolu mooy tax mbaax sax ndax ñu bon ñi ñu ngi fexe mbon gi di sax mm-hmm. moo tax njabarkat bi ba mu ba màgget daf na yebalal xale mu ñëw ma jàngal ko di la jàngal ne nekk xale moo gën a mën a takk njàngam xale moo gën a sax njàngam mag njabarkat bi mag la xam na àdduna am na expérience ci àdduna xam na ne jàngal xale ci lay gën a mokk ci lay gën a leer nga dem di jàngal magam jëm daa mag dépassé ak soxla yi ñu ngi si bopp bi fas fa tëb mhm. waaye xale moom <coughs> amagul benn soxla bu mokkalee loolu dafay sax ci boppam bu du ko gaaw a fàtte moo tax la nga jàngoon ci ndaw sax bokkut li nga xam ni ba nga nekkee mag nga ko war a gëstu bokkut ba nga nekkee mag sa xam-xam yaatu nga xam lu bari matière yi nga gëstu ci jamono boobu da gis ne matière yi nga doon jàng ci ba ngay nekk ndaw sax moo koy gën a dëgër jàng ci ndaw comme rëdd ci doj boobu fa bansa buur bi daal di yónni ilay ci njabarkat bi xulaaman ab xale yu àllimoo mu di ko jàngal buur bi jël ab kale yóbbu ko si njabarkat ba pour mu jàngal ko mhm. waaye yàlla mu dimbale xale boobu ba mu mujj nekk wëllu bi yàlla wakaana nekkoon na fii tariqi ci yoonu xale ba ida salaka bu fa sooboo raahibun ab labbe xale bi yoon bi muy jaar pour jàngi njabar gis na fa benn labbe mhm. xam nga ci jamono boobu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwagut kon diine ju baax la labbe boo xam ne fa beru rek jaamu yàlla mhm. niru ne nag labbe la bu am xam-xam ndax nit mën naa beru di jaamu yàlla fekk borom xam-xam la bi niru na labbe bu amoon xale bi fi muy jaar di jàngi njabar dafa am labbe bu fa nekk xale bi nag dafa sob bu ñëwee ba ci labbe bi rek day toog di déglu labbe bi wax fa qaada mu daal di toog ilayhi jëm ci labbe bi wa samia mu dégg kalaamoo waxam fa ajaboo wax ji neex ko bu ñëwee rek toog ci labbe di déglu li muy wax kon nga dégg ne làbbe bi borom xam-xam lool da doon jàngale mais waxi làbbe bi neex ko lool xéem ko wa kaana nekk na isa ata bu dikkalee a saaxira njabarkat ba mar na romb na bi raaxi bi ci làbbe bi waxaada mu toog ilayhi jëm ci moom ata bu dikkalee a saaxira njabarkat bi rek dara boobu njabarkat bi door ko xale bi dalaan tardé dalaan tardé jàngam njabar ma ndax day ñëw ci làbbe bi toog di déglu di déglu balaa moo dem ci njabarkat na rek waxtu wa passé bu ñëwee nag njabarkat bi daal di ko dóor ne ko del téere ñëw fa shaka mu tawat zaalika loolu ila raaxi bi jëm ci làbbe ba ba mu ñëwee ci làbbe bi na ko man de damay toog di déglu li ngay wax waaye su ma demee si njabarkat ba daf may dóor fa qaala njabarkat bi ne ko ida xashita boo ragalee a saaxira làbbe ba déedéet fa qaala làbbe bi ne ko fa shaka mu tawat zaalika ila raaxi bi ci làbbe fa qaala làbbe bi ne ko ida xashiita boo ragalee assaahira njabarkat ba faqul wax ko ne ko xabasa nii téene ma ahli sama waa kër wa ida xashiita boo ragalee ahlaka sa waa kër faqul waxal ne xabasa nii téene ma assaahiru njabarkat ba laamin bi wutal ko solution fenul nag waaye dafa def ni ñuy wax tawriya tawriya mooy lan mooy nga wane loo xam ne nit ki la muy déggee sa wax yow nam moo ci loolu bu dee bu situation demee bu sës mën ngaa def lu mel noonu mu ne ko bu fekkee da war a dem ca jabarkat ba ragal boo yeggee mu dóor la ne ko sama waa kër ñoo ma téewoon xam nga ba nga demee sa waa kër ñu la ñoo la fa téewoon. Mhm. loolu nga ci nam nam ñoo ma taal ne ko sama waa kër ñoo ma téewoon ba nga demee seen kër kay sa waa kër ñoo mhm. ba ra wax ko nga du la mu ne boo ñëwee ci man di déglu déglu ba war a ñibbi tardé seen waa kër boo ragalee seen waa kër duma la wala ñu wax ak boo demee ne ko njabarkat bi moo ma téewoon mhm. waaw ba nga nekkee si njabarkat bi njabarkat bi téye na la fa xam nga wax na dëgg waaye muur na wax ji ba yow ni nga koy déggee bokkut ak moom ni mu ci jublu mooy tawriya boo nee na mën ngaa ndax moo gën mu bàyyi làbb bi dootu jëriñooti bu jaaree fa yàqu làbb bi loolu la ko boo de boo ragalee njabarkat bi ne ko kër ñëw ma téye boo ragalee nag sama kër ne làbb bi ñëw ma téye làbb kii woon njabarkat baa ma téye woon ba nga xamee moom ala zalika mu ci loolu di lay rek istisage ataa la dikkee àla daabatin ci daaba azimatin bu màgg xar xabasa téena annaasa nit ñi waxut yonentu waxut ban daaba la fa qaala xale bi ne al yowma tey alamu danaa xam asaaxiru njabarkat ba afdalu moo gën amir raaxibu wala labbe ba afdalu moo gën faaqasa mu jël xajaran xeer fa qaala mu ne allahuma yow bur yàlla in kaana bu nekkee amru raaxibi mbiru labbe ba ahabba di gën a sopp ilayka jëm ci yow min amri saaxiri ci mbiru njabarkat bi faqtul rayal haasi dabbata bi de dabba hatta yam diyee ba mu jàll annaasu nit ñi faramaaha mu sànni daaba ga fa qatalaha mu rey ko ma daa mu wëy annaasu nit ñi xale bi def li ñu tuddee listixaar lii mooy listixaar lii mooy cosaanu listixaar ci sunna gis benn daaba bu mag nekk ci yoon wi kenn mënul jàll kenn mënul dikk ndax baare na yoon xale bi ñëw na nag danaa def listixaar ci daaba gi ba xam làbbi bi moo nekk ci dëgg walla njabarkat bi moo nekk ci dëgg mu jël benn xeer na yàlla bu fekkee mbiru làbbi bi moo la gënal mbiru njabarkat bi su ma sànnee na daaba gi dee ba nit ñi mën a jàll ba mu sànni rek xeer waray daa bëgg nit ñi jàll moo xam ne kon làbbi bi moo nekk ci dëgg yooyu mooy listixaar listixaar mooy lan mooy nga def sa ñaan ànd ak xol bu set te dëggu ne yàlla bu dee lii ma bëgg a def lu gën la yàlla nga ma won ay mandarga yu may wan ne ma dëgg la boo tëddee yàlla mën na la ko won ci gént wala ay màndarga yu lay wan ne li nga def nii lu baax la wala boog li nga bëgg a def nii lu bon la ay ishaara ci gént mën na la ko won it ci gént mën na la ko woon sax si nga diisoog benn waaye mu wax la loo xam ne nii loolu convaincre na la nga daal di tànn benn yoon nga xam ne lay gënul li moo gën man nga man man man ngaa toore yàlla def sot dënn bi luy wane ne lii moo lii moo gën nga def ko mën naa manifesté woonu nekk waaye li si xaar yàlla wala màndarga buy wane li nga nekk lu baax la wala baaxut lii mooy cosaan bu njëkk nag yi dafa bokk ci masal yi nga xam ne monsieur dellu gannaaw daa man li si xaar dara naa wax ne xeeti jaamu xërëm la ku koy def ak ko dëgg lépp safar lañ jëm ah ndax <laughs> loolu laa dégg bàyyi di wax hmm? allahuma lu may moo demee ba taxaw ci ay listixaar yoo xam ni ci kilifa yooyu la jugee ma xam ne kon nag listixaar gi go gi bon mooy tur yoo xam ne turi xërëm la ak yooyu nga xam ni eh, du alquran du ñaan gu set waaye ñaan rek moom pour yàlla wan la dara sa gént lu mën a nekkal Hmm? kon boo dégloo benn waxtaan mu ne listixaar tëdd nelaw nangam nangam baaxut xamal na maa ko xool waaye génn naa ci masala foofu dellu naa ci gannaaw lii moo ci saanu listixaar boo ne waaw tëdd nelaw gént mën naa yow da gént mën naa am loolu du dëgg eh, waaye sa daa bi sànni rek kii dee mën naa am dëgg di ko ko wax ne boo sànnee xeer daa bëgg dee wóor na ne mi moo nekk mën naa am mën naa am rek la yooyu kenn du ci sukkandiku ñaa yàlla nga ñaan yàlla wan na la dañuy gëm ne yàlla la wan li boo gëmul na nga dem seet leneen loo looy def yow waaye man naa sa mën naa mën naa am yooyu kenn duñu sukkandiku dàq loo xam ne nii yàlla saxalal la ci nit ne ko li nga nekk ni dëgg la kon ni soxarango waaye nag bu doon ko def fu nekk ak ci ku nekk danañ xool ñi ragal yàlla te jub ñu defal leen li listixaar wax leen lu leer nañ koo xam ne am naa feqalab saay saay la bu leen ko def loolu istixaar ndax leen koy dimbali ci mbon mën naa ñëw fenal la waxut benn dëgg day fen rek am ñu ñemee yàlla de tëdd rek gént bëgg réer affaire na la ah fekk day fen rek gisuñ dara sax dara mën naa am it ay yëfu xiram lañ yore booy jëflante ci lu nekk jëflante ku set lu mën a xew xale bi def na listixaar tànnaloo yàlla ne ko yàlla daal bu dee labbe bi moo wax dëgg xeer bi bu ma ko sànnee na rey daaba gi te daaba gu rëy la ab xeer mënu rey daaba mu ne yàlla su fekkee làbb bi moo wax dëgg na xeer bi rey daaba gi ba nit ñi jàll mu sànni rek xeer bi rey daaba ga nit ñi jàll fa ataa mu dikkal araaxi ba làbb bi fa axbaru ma xibaar ko mu daal di ñëw si làbb bi nag wax ko listixaar ga fa xaala mu wax loo ñëw ko araaxibu làbb làbb bi ne ko ay bu na yee yow sama ci doom ante yow al yaw ma tey afdalu yaa gën min nii ci man xat balaxa jot na min amrika sa mbir ma wala boo xat balaxa yegg na min amrika sa mbir maa araali ma gis lii moo lay jàngal ne sëriñ léeg-léeg mu xam maqaamab taalibe moo tax bàyyi daana wax ne wala lii mën naa xam maqaamam mën na ko bañ a xam bokk na ci li nga xamee maqaamam ñu wan ko ci gént mën ngaa tëdd ñu wan la ne yow sa maqaama ci yàlla fii la dana am yàlla yàlla sa sëriñ nee sëriñ man na laa wax ne fii mooy sa maqaama li yee tegtal bi làbbe bi ba mu xoolee xale bi la xam xale bi maqaamam léegi mu ne ko tey de yaa ma gën kon yéeg nga ci maqaama boo xam ne léegi yaa ma gën a foor sa mbir xegg na ci li ma gis lii dana la jàngal ne wëlli yu mën naa xam kump mu ne ko wa in naka na naka yow sa tub talaa danañ la nattu boobu nattooguñ ko mu ne xale bi danañ la nattu dana am nattu bu dal sa kaw waaye fay nit tulita buñ la nattoo falaa taddulla bul tegtal alayya ci man bu ma weer bul wax na ci man nga jëlee li nga xam bis dana ñëw ñu natt la natt bu metti dal sa kaw waaye buñ la nattoo bul ma weer nga xale bi bañ ko nattoo dem na ba mënatu ko muñ mu fe mu for ko weer weeru ko ndax kii waaye dafa dem ba jafe-jafe yi ëpp ko doole nit dana def dara ngir lott wa kaana nekkoon alxulaamu xale bi yubri u di faj al akma ku judduwaale gumba wala abras ak ku jàngoro ak baras jàngoro boo bu ñëwee dalee si yaram bi day weex tal wayu daaw muy faj an naas nit ñi min saayir aduwaay ci mboolem jàngoro yi kon wëlli buy faj nit ñi lu mën a nekk la waaye nag du wax ne mën a daf naa ne yàlla mais faj ayut xale bi wëlli yu doon yàlla may ko karaam waaye dafay def ku gumba boo ñëwee mu faj la ku yore jàngoro bras boo ñëwee mu faj la jàngoro joo mën a yore boo ñëwee xale bi faj la moom naa wax ne man yooyu du ma ci dugg ah, mais dafa bëgg dimbale doomu aadama kon bu bu ku bul gis ku naan mën naa faj lii mën naa faj lii nga ne xaalis rek lay wut dégg nga xam ne ni yàlla daf leen a may def te yàlla tax duñ ne mën a dañ naan yàlla la ah. fa samea mu dégg loolu jëli sun aji toogaale lil maliki ñeel buur bi kaana nekkoon na xat yee di gumba benn waaye boo xam ne daf laan toog ak buur bi toujours dégg mbiru xale bi ne xale bi dafay faj gumba te waa ji dafa gumba woon mu ne xale bi ba xadaaya ci yu bëri gumba bi daal di jël addiye yu bëri indil ko xale bi kon nga faj nit mu jox la xaalis dara nekku si mhm. fa qaala gumba bi ne ko aj maw danaa daje da lakk aj moom dajale lakk ñeel la maa naa li nekk fii mu ne ko li nga gis nii ci addi yëpp yaa ko moom in anta bu fekkee yow safayte nii saafara nga moom boo ma fajee addi yi yëpp yaa ko moom waaye boo ma fajee la wax de waxuma faj nga ne ko waaw mu yool a xaalisam nga lekk ba pare naan ko suñu rab yi déggoowut ak da gëmul bu baax ak affaire bi boo gëmul du la jëriñ ak <laughs> yow boo jëriñu nit ki delloo ko xaalisam mm-hmm. da nga bàyyi lay yi léegi xaalis jàmm lu bay ko da ngaa ku yëkkati xaalis jox la kay gëm na dafa gisul résultat rek waaye gëm na ndax bu gëmu woon du jël xaalisam di la ko jox fii rab yi wut xanaa xamoo ko yow kay balaa ngaa fañ nit kay da nga war a xool ba xam seen rab yi déggoo ndax am déggu boo mënul loolu fañ nga ba waaye naa ko affaire dañoo déggoowut ak nangam nangam nga delloo ko xaalisam كون فاج من نام غا فاج ني جوخ لا دا نيكو سي واي بو سافر و نيت كي ديفلوكو توس دالوكو خايسا فقال قلب نكو اني نك من لا اشفي من ما فاج احدا كن انما يشفي نك دنا سافر الله ولا تعالى كون غيس ني خالبي لي مي ديلو مبيري سي يالا منكو من من ما سافر كن يالا موي سافر كو كو نيه لول لا خالبي واخ فين امنت بو گمي بالله الله تعالى كون داوتو ما نيان الله يالا فشفاك مسافر نيان رك لا mu ne ko boo gëmee yàlla nag man mën naa ñaan yàlla pour yàlla faj la fa amana mu gëm billaay ci yàlla taala kawe na fa safaawu musaafaruk allahu yàlla taala kawe na bu ko defee <coughs> toogaaleeg buur bi daal di gëm yàlla xale bi ñaan yàlla yàlla faj ko mu daal di gis fa ataa mu dikkal almalika buur ba fajara sa mu toog ilayhi jëm ci moom su ko defee waa ji dem ci buur ba daal di toog kama kaana comme nu mu nekkoon di toog mu dellu ci buur ba toog nam daan toogee di xulli ba di xoole mu leer nañ mhm. buur bi jaaxle fa qaala mu wax loo ñeen ko almaliku buur bi ne ko man de kan moo delloo alayka si yow basaraka sa bët qaala mu ne rabbi sama borom waa ji gëm na yàlla léegi lii mooy mission xale bi woote jëmee ci yàlla pas jëmee ci boppam ji ba mu demee ba toog ne ko ku la delloo say bët mu ne ko sama borom xaala buur bi ne ko walakk ñeel na la rabbun borom xayri budul man mën naa da nga am benn man xool niñ bébee واجي نكو ربي سما بروم وربك اكسا بروم يو اللهم يال نكو نيم ñaar نبي الله ني مو موتاك گم يالا بو دوجي سي خول كو گنا راغال كرم كوي گنا نيمي دو راغال تي موك لوما يال دي نغي يگ سي گاني نغا خامني القران دا فاي وخ سين حسين حال ني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله دا نغي بوك ني خامني داني جوتلي ميشن يالا يالا رك لا ني راغال راغال تون كنن كوما يال gëm yàlla bu nekkee ci xol loolu lay def ci biir xol bi meññit moomu lay meññil ci xol bi moo tax na xam nga ne nit ñi dañ koo ragaloon a ragal ragal ragal ragal ba banu la ba na labee sax gëmuñ ko mu ne mu ne Moussa déer nañ ko gis ña Moussa ñaan yàlla mu génn ko ñu xam ne dee na mel ni yëkku xonqoo noonu lañ ko ragale woon waaye keroog ba bañ gëmee yàlla firawna tëkku leen dinaa leen def nangam a nangam faalo yi nga dañ ne ko faqdi ma anta qaadin defal lu la neex innama taqdi hadihi alxayaatu dunia ci àddina bii rek nga ma am pouvoir àddina bi rek nga ñu ma def dara ñun gëm nañ yàlla defal lu la neex loolu la ñuy wax Firawna Firawna mi nga xam ne sigg xool ko bañ bañ gëmee yàlla muy buur bu beew dañ ne ko hey sa tëkk yi jaru ko defal lu la neex yow ci àddina rek la sa pouvoir ci nga ma def moo tax waa ba mu gëmee yàlla dafa ne buur bi man ak yow yëpp yàlla ñu moom faaxasowu buur bi jàpp ko faram yësal dañu yuazibu di ko mbugal buur bi teeku di ko mbugal di ko mbugal xataa dal la ba mu tegtal alxulaam ci xare bi xale ba mbugal mi ba mu méttee nag mu ne ko xale bi moom ma faj ah weer na xale ba la ko sëriñam waxoon ñëw na dañ la nattu nattu baa ngi commencé fekk mm-hmm. fa ji ñu indi bil xulaam ci xale bi su ko defee xale bi daal di ñëw fa xaala mu wax la woo ñeen ko almaliku buur bi xale bi moom ñëwee buur bi ne ko ay bu ne yee ay yow sama ci ndoom xat balaxa jot na min sixrika sa njabar maa la nga xam ne tubri u da nga ci faj al ku gumba wala abras ku yore jàngoro baras wa tafaalu ngay def lii wa tafaalu ngay def mu ne ko ah sama doom ah yow sa njabar gi am na solo <laughs> kon jàng nga njabar ba mën a faj gumba ak baras man cee def nangam ak nangam ak nangam parce que moo ko booloon a waa ji mu koy jàngal jabar fekk waa ji bana jabarkat bu yàgg si yàlla la jëlee maqaamam bi fa qaala xale bi ne ko indi nag man laa ashfi mun maa saafara ahadan kenn innama yashfi naka dana saafara allahu yàlla taala kawana mu ne ko yàlla yàllaay faj waaye man mënu maa faj kenn bu dee yàlla mayee da nga ko war a delloo waaye yàlla may la nga naan mën a mën a rek ñàkk nga rawatul ko te bu ko jëlee nga fuuti faaxasaw mu jàpp xale ba falam yezal dañu du azibuhu di ko mbugal xatta dalla bam tegtal ala raahiba ca labbe ba buur bi tee xale ba di ku mbugal di ko mbugal di ko mbugal ba xale bi ne ko labbe bi moo ma yar ba ma mel nii tegtal na labbe bi labbe bi def na ko bu ma weer waaye weer na ko weeru ko nag ci coobareem dafa lott moo tax mu weer fa ji añu andibi rahibi ci labbe ba hmm. fa xiila ñu wax loo ñëw ko irgent delluloo an diine ko bàyyi sa diine ñu indi labbe ba ne ko bàyyil sa diine fa abaa mu bañ hmm. labbe bi ne mukk fa daama buur bi hoo bi minchaari ci si hmm. si moo yooyu ñu daggee bant fa wudde añu fa wudde añu teg al minchaaru siga jàng bil minchaari bii la bii la war a kasara bi ñu damm ko mu jum damm bi kasar bale foofu de ñu teg al minisaaru si ga fii mafriqi rasi yi ca diggu bopp ba fa shaqahu mu xotti ko xataa waqaa ba mu daanu shiqaahu ñaari wàll ya laabe bi nii lañ ko def bañ ko weeree buur bi def na ko bàyyil sa diine mu ne mukk buur bi wut si teg ko ci diggu bopp ba rek dagg genn wàll yaram bi daanu fi genn wàll yaram bi daanu fële loolu la ko jaraloon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba sahaaba yi naan ko ñaanal ñu yàlla parce que nangam ak nangam ak nangam mooy leen da ngeen yàkkamti am na ci ñoo xam ne ni dañ jàpp seen diine ñu jël si xar bi ñaari xaaj bii daanu fii bii daanu fee te taxul ñu bàyyi seen diine maanaam laa war a jaral te diine jaral la kat loolu moo di am xel ndax kat sa lépp yàlla la ko jox te léppit yàllaa ko moom moom moo la sant nga jàpp sa diine ak lu mën a xew kon bu la keneen santee lu wuuteeg li la yàlla sant lay xel lay maandute lay njub mooy nga topp yàlla waaye kenn du topp mbindeef mooy borom mbindeef laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaaliqi bu ko yonentu waxul woon xel war koo nangu ci bind nga bokk fa dem di topp kañ bind mooy ka bind loolooy tooñ dëgg loolu mooy tooñ moo tax alquran ne inna shirka la zulmun azimun bokkaale tooñ gu màgg la fekk borom kër gu tabax këram di joxe mm-hmm. dépassam ab bande saay-saay taxaw ne kenn du fi togg ceeb tey te borom kër gi bëgg ceeb ngeen topp bandi ba tooñ ngeen dépasse ab jàmbur lu la bëgg la nga cee togg ku la abal bët fu ko neex nga war a xool daf waral war jaral te diine foo mu ànd ak nattu boo ci jàpp bu nattu yi ñëw rek nga bàyyi waaye gëm naa yàlla ñàkk ñëw nga génn ci gëm nga ngir xaalis boo am gëm naa yàlla tëkku nañ la nga ragal lor wa daal di daw mbir mi demeewul noonu waaw mbir mi demeewul noonu xam nga waa ji xamoon na ne dañ koy rey bu jàppee ci dëgg waaye taxul mu dellu gannaaw ñaar dafa am mooy ngay def loo xam ni amul sikk sakk ne lii boo ko defee ñu rey la tey lu baax la lu la yàlla sant waaye boo ko bàyyee nag nit ñi duñ ci yàqoo kenn du ci alko su boobaa bu neex nga continuer topp mbiram yàlla bañ ba dee ci yoon yàlla waaye bu neexee nga bàyyi mel dañ laa tànn force wuñ la waa ji bu ko neexoon mu wax baatu xéeféer nag génn naa sama diine waaye kon nit ñi ci boobu ñoo ci jaaree yàqoo na diine laa bi kat baaxut buur baa nekk ci dëgg buur bi gën a am doole moo tax loolu moom suñu ko wax parce que position bu mu taxawee bu delloo gannaaw rek mbir mi yàqu kooku dafa war ñu rey ko waaye bu fekkee ku kenn ku kenn la bu delloo gannaaw yi dara du yàqu bu ko neexee mu delloo gannaaw bu ko neexee mu continuer waaye nag ak ragal rek ah est-ce que est-ce que mu ko defee eh, est-ce yi dañu ma sonal est-ce que nangam nangam est yooyu kenn du ci bàyyi dëgg est que yooyu kenn du ci bàyyi dëgg da wax bu ndogal nga ñëwee nga xam ne ñëw na maanaam bu fekkee yow ci tànn su rek nga nekk li ngay wax ci lu baax wala li ngay def man nga see jëlee lor lu baax kay ku koy def wala nga di ko xam nga ne lor mën naa ñëw mais man naa bañ a ñëw comme que leerul nag bul daw léegi ngi ci jamono yoo xam ne nii ku jug di wax lu baax nañu ne defal lànk dañ lay rey de ku lay rey bu ne ko may rey ñu xaw ma daf laa wóor ne dañ may rey eh, gars ay bandi lañ daal ay bandi dañ tax yow nga bari te yàlla mi leen ëpp doole mu ngi fi gis nga ku ñeme yàlla kenn waru koo ragal nit bu demee ba ñeme yàlla ñépp war koo ñeme. nit yàlla nag ñëpp waaye ñi may wax lu ko neex ci borom bi subhanahu wa taala te kenn ñi mu koo wax dara mu ne loolu dëgg ñu bëri nag ci ñooy dawloo benn ñii réere leen jàpp ñii nee nañ laa yërëm yee te leen la yërëmee moo lay sofe mu ngi mel ni ku feebar ñu di ko pikir ñu laa ah yee bul pikir kat dafa saf pikir bi moo lay faj yow li ngay def nii même boo si jëlee lor garaat la lay ci yàlla kon nañ la ca baax te ñaanal la ci yàlla loolu mooy wax ca waaye buñ la ci génne bu demee ba ñëpp nopp kenn waxatul dëgg kenn defatul dëgg lépp yàqu kon gis nga nii la muñee ci diinam bañ xotti yaram ñaari xaaj ah su ma jiyaa topp ñu indi bi jëli sin maliki ci toogaale buur ba gumba bi ñu fajoon mu wér bañ reyee laab ba ñu yaakaar nañ ne kon moom dana tiit ñu ko kaa yow fa a dañuy wax loo ñëw ko irjian dellu laan diine ko bàyyi si diine ñu ko bàyyil sa diine loolu lépp buur bi da ko doon def pour napp nit ñi ngir nit ñi ragal waaw buur day xoqatale nii day ñëw dóor kenn dóor yi metti ngir ñeneen ñi ngir tàppat daw kenn du defati dara kenn du waxati mu indi gumba ba woon ne ko bàyyil sa diine fa abaa mu bañ fa wuddiyaa ñu teg al minshaaru siga fi mafriqi raasi ci xaaju boppam ba fa shaqawu mu xotti ko bii ci moom atta waqaa ba mu daanu siqaawu ñaari wàllam ya mu jël toogaaleeg buur ba jël si ba rek teg ci digg boobu ba xar tànk bi daanu fii tànk bi daanu fii gën wàll yaram bi daanu fii gën wàll yaram gi daanu fii ñu njëkk lii la leen diina jaraloon te seen diina melut ni diina yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen garaat xeggut ci garaat xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow nga am garaat bi gën a foor am diine ji gën a foor am maqaama yi gën a foor yàlla gàddul la wërsëg àdduna lu la tee góorgóor lu tee mbir mi jaral la te yàlla rek tax nag te yàlla rek tax xam nga def te yàlla taxul moom ko feebar koy waral daa nga feebar feebaru xel xam nga feebaru xel mooy nga jël sa xel mi enregistré ci lu nekkul nit ñi mënuñoo jëriñ mënuñoo lor yow nga yaakaar si ñoom njëriñ bay def ngir ñoom ragal si ñoom lor bay def ngir mucc si ñoom da mu mel ni rek ku ñëw jàkkaarloog Malick mii dégg nga gis Malick mbécc ca loxo ba rek tax muy neexal loxo ba te tey dóor Malick yaa ngi dóor Malick ci jë di ko ñoppati loxo bi moom nga yaraay na ah, parce que damay ragal mu mbéj ma bu yàggee loxo bi lay Malick jël rek mbéj la ko nga daanu benn yoon moo tax bëri na kuy def ngir nit ñi ah nit ñi ñoo wëlbatiku dal ci kawam mbugal ko mbugal mu métti mu ne dañ ma war ak dañ maa nangam la ma leen defal ak yow yaa njëkk a war di parce que yaa war borom nit ñi yàlla sa yaa ngi ñëppati Malick tey raay loxo ba loolu mooy yëfu xel boo bëggee mucc gërëm loolu Malick loxo ba du la def dara làmmañ bi du la mënal dara bët bu dana la xool xool bu baax tànk yi dana dox jëm ci loxo ba dana la jox gémmiñ gi dana wax ci lu baax bëñee du la màtt dara du la lor waaye boo gërëm loolu Malick merloo ko kay bu ko neexee teel teel mi lor la yàlla it moom moom mbindeef boo gërëm loo yàlla benn mbindeef mënu laa lor boo ko gërëm loo nag dégg Mm, dégg nga di wut njëriñ ci mbindeef it benn moom laa jëriñ yàlla wax daal mooy wa in ma yaftahi llaahu linnaasi min rahmatin falaa mumsika laha yërmande gi yàlla ubbil dara mënu koo téye wa maa yumsik falaa mursila lahu min baadihi li yàlla téye kenn mënu la koo jox su lu mbiri métti métti dellu sa borom nga gërëm ko su boobaa la tàggatal lépp ñu nekk ci sa bëgg-bëgg ba ma def ci yàlla tax su ma jiyaa topp ñu indi bil xuraam yi ci xale ba léegi xale ba sës nag xale ba xëy na maqaamam dafa gën a yéeg ci diggante bi hmm. xëy dafa loru rek dellu ci yàlla yàlla dimbali ko parce que bu fekkoon maqaam bi yore na ko ci commencement ba xam na ne buur bi mënalu ko dara du weer làbbi ba hmm. mais dañ koo mbugal ba mu sonn mu weere hmm. te gannaaw gi bañ ko bëggee mbugal mënatu mënu ci moom dara amaana kon maqaamam moo gën a yëg gars yi mënatuñoo yegg si si moom amaana bu njëkk mbugal mi dafa door a ñëw bett ko ñaanul yàlla deful dara mu nekk foofu di yuuxoo ko jooy rek maanaam di tiite ko yooyu xam nga tiit jariñu dara bu ñaareel bi nag bu ko gars yi bëggee mbugal mu xalaat lu njëkk la mu gaaw dellu ci yàlla ba mu dellu ci yàlla yàlla dimbale ko amaana noonu la demee amaana maqaamam dafa gën a yéeg moo tax yoonu ñaareel ñu bëggee mbugal xale bi rey nañ paa ba làbb ba rey gumba ba woon ba fajoon ba xale bi fajoon ñu indi xale bi mënuñ ci moom dara dara dara mbugal ko bëgg a def rek du tàbb waaye dafay ñaan amaana maqaamam moo gën a yéeg amaana déedéet bu waaye bu njëkk ñaanu toon yàlla mbugal mi da koo bett mu nekk foofu di méttal lu di jàq di tiit ba far wax lu mu warul wax yoonu ñaareel bi nag mu xalaat mbugal mu métti ma luñ ko bëgg a def mu dellu ci yàlla ci sens yàlla nangu ko moo bokk na ci kiraama wala yàlla ñaan gu nangu su ma jiyaa ñeen ni bil xila xulaami ci xale bi fa xiila lahu ñu ne ko urgent bàyyi laan diine ka sa diine ñu daal di woo xale bi ne ko génnal sa diine gis na ñaar ñuñ rey ñaari sang ñaar ñi mu àndoon yëpp rey nañ ne fa abaa mu bañ mu ne mukk génn ma sama diine fa dafa mu jox ko ilaa nafarin ci mbooloo min asaabi ci ay gaayam buur bi woo mbooloo ci ay nitam jox leen xale bi fa qaala mu ne idhabu yóbbu leen bii ci moom ilaa jabali kaza si doj nangam wa kaza ak nangam am na doj yu xam daal comme yow mii da nga si doj doj bu nekk nangam waaw hmm? buubu ne ko yóbbu leen ko si doj nangam doj bu kawe fasaadu na ngeen yéeg bii ak moom aljabala doj bi bu ngeen demee ngeen yéeg ca kaw dojoo fa isa balaxtum bu ngeen jotee zirwatuhu njubbu doj ga fayen rajan bu bàyyaan diine ci diineem ngeen andi ko wa illaa bu bàyyiwul diinam nag fatraxuhu sànni leen ko mu dee nii la bëgg def xale bi mu ne xale bi génnal sa diine xale bi ne mukk mu woo mbooloo ne jël leen ko ngeen yóbbu ko ci doj nàngam bu ngeen demee ngeen yéeg ci kaw doj wa bu bàyyee diineem baax na bu nangutu bàyyi diine nag sànni leen ko mu daanu ci suuf fa zahabu ñu yóbbu bii ci xale bi fa saadu ñu yéeg bii ak moom aljabala doj ñu yóbbu ko ba ci kaw doj wa fa mu daal di ñaan yàlla mu ne xale bi ne allahuma yow bur yàlla allahuma yow yàlla nga ma leen teel bi ma siita ci num la neexee ñaana boon liyu dëgg ngi mën naa mer ne yàlla yàlla nga xalak ñii <laughs> am na yàlla yàlla nga leen toroxal am ñu koy ñaan mais def ne yàlla yàlla nga ma fegal seen lor ci nun la neexee moo xam nga rey leen moo xam nga téye leen moo xam duñ ma mënal dara yow daal yaa xam noo ma noo may aaree yàlla nga ma aar allahuma yow yow bur yàlla ikfinihim yàlla nga ma leen fegal bi ma siita ci num la soobee fa rajo fa mu daal di yëngatu biim ak ñoom aljabalu doj bi fa saqatu ñoom ñoom ñu daanu <laughs> yàlla nag ku ko aay la léeg-léegi moom boo ko ñaanee yow waxoon mbugal waaye day indi mbugalam moom moo tax tooñam wala lii baaxul doj bi moo yëngatu ñoom ñoom ñu daanu dee xale bi wàcc moom dem doon soxla te ba mu wàccee mënoon naa daw waaye dafa ñëwaat ci buur bi mhm. parce que ci daaw la nekk ci woote jëm ci yàlla xale bi ragalut dee mhm. waaye dafa xam ne buñ ko reyee nit ñi dootuñ ñemeeti def lu baax ndax dañuy wax ne fii kat ku yëngatu buur bi rey la moo tax mu ñaan yàlla yàlla aar ko ba mu wàccee dafa delluwaat ci buur bi ngir lan ngir nit ñi xam ne buur bi mënul mënul dara yàlla rek man pour nit ñi gën a gëm yàlla mm-hmm. waaw lii xale bi di ragal moo nekk société bi léegi xam nekk société bi mooy ah boo nekkee xale bi di jéem wax lu baax léegi tey nga dee nit ñi loolu lañ gëm mm-hmm. jàpp nañ ne ku waxaw ci yoon bu baax doo gudd fan da gaaw a dee loolu du dëgg fan yi yàlla bind na ko ba pare ku nekk ñaata fan nga war a dund yàlla pare na ci balaa nga jut mhm. nekkul mbaax mooy tax nga gàtt fan nekkul bon mooy tax nga gàtt fan ñaata nit ñu baax gudd fan lool sunu mhm. yàlla moo ñaata at la dund mhm. mais ñaata nit ñoo bon gàtt fan lool waaye de bu kenn nekkee ci yoonu mbaax yàlla natt ko ñu rey ko ci misaal wala mu dee ñu ne ñaw maa xalla dafa dafa goog rek ah nangam nangam moo taxit dee la de yéen bi boo ngeen moytu yéen moytu lan moytu def lu baax moytu baax na muy def lu baax boo bàyyi lu baax boo ko ci moytu loolu arak sa bopp la kon nekk leen ci lu baax di la gis ngeen ay junne junne ni dee ca bu ngeen ci dee yéen bokk ci ñu ñu ñu shahid am shahadatu ngeen bokk ci shuhada jar na ko mm-hmm. waaw amaa su ngeen ne ah diw di fii la fi nekkoon di wax rek ay dee na diw nangam na diw nangam dal na ko diw na kon nag xaar ma noppi yaa ngi bokk si ñooñu wax naan law kaanu indana ma maatu ma qutiloo bu la buñ nekkoon buñu àndoon ak ñun de duñ dee duñ leen rey yàlla ne la yaj'ala llaahu zaalika hasratan fi quluubihim loolu perte la leen bu nekk seen xol ndax wallaahu yuhyi wa yumiit yàlla mooy rey mooy dundal kon nekkal ci li la war bu la ci dee fekkee sa njaaraama wàcc na fekk dee jot rek bu jotee kenn mënu ci dara wajaa xale bi dikk yem ci di dox ilal malik jëm ci buur ba xale bi ñëw ci buur bi nag fa xaala mu wax loo ñëwee ko al buur bi ne ko maa fu lan lañ def bi asaabi ko sa gaaña an sa fa xaala mu ne kafaa nii himu fegal na ma leen allahu yàlla taala ka xale bi ne ko yàllaa leen téye buur bi mer fa dafa mu jox ko ilaa nafarin ci beneen mbooloo min asaabi ci ay gaayam buur bi jël ko jox ko yeneen mbooloo fa qaala mu ne izhabu yóbbu leen bii ci moom fahmilu ngeen xenu ko fii qurquurin ci gaal wa tawassatu ngeen diggu doomu bii ci moom albahra géej ga fen rajan bu delloo an diini ci diineem baax na ngeen bàyyi ko wa illaa bu nangutu bàyyi diineem faqzifuhu sànni leen ko ca ndox ma mu joxaat ko beneen mbooloo ne yóbbu leen ko ngeen dugal ko ci gaal ba ci biir géej ga bu bàyyi diineem baax na bu nangutu bàyyi diineem ngeen sànni ko ci biir ndox ma fa zahabu ñu yóbbu bii ci moom fa qaala buur bi dem bu xale bi ne allahuma yóbbu yàlla ikfinihim yàlla nga ma leen fegal bi ma siita ci lu la neex ci num la neexee fan kafaat mu këpp biim ci ñoom asafinatu gaal ga fa xariqu ñoom ñoom ñu lab waaye bi moom labut wa jaaw mu dikk moom xale bi yem ci dox ilal malik jëm ci buur ba dafa mel ni kon gaal gi ñoom la labal mais dafa bay xale xale bi ñëwaat ci buur bi mënoon naa daw mais ci daaw la nekk booy wootee jëmee ci yàlla bul ragal risque yi bul ragal risque yi ci nekk fa xaala mu wax loo buur bi ne ko maa def bi mu ne kafaa nii mu fegal na ma allahu yàlla taala kawal boo ñëwaatee buur bi ne ko ana gaaña mu ne ah, yàllaa leen téye te buur bi yàlla rek lay bañ a xale bi wax buur bi nag lu koy rey mu ne koy mënoo maa rey kon xale bi tamit niir na ne maqaamam gën naa yëg xam ne ne buur bi mënalu ko dara fa xaala moom moom xale bi maliki ñeen buur bi ne ko innaka naka yow lasta ne ko bi xaatili di ma mën a rey xataa tafaanal ba ta nga def maa amuru ko la ma lay digal bii ci moom xale bi digal ko loo xam ne bu ko defee dana déega waaye nit ñi dañ fay jaaree gëm yàlla mu joxe boppam ngir diine gën a tasaaroo loolu moo waral jihaad de xale bi wax na ko li koy rey waaye dafa xam ne loolu day yëkkati lislaam day dundal ay junney junney bakkan day tax bakkan yu bëri tuub kon moom dee na waaye mu ngay dund ci yàlla ba pare dundal na ay nit ci yàlla tasaare ne dee mu ne ko mënoo maa lu may nga def li ma la digal ba pare digal ko loo xam ne ñëpp dañ ci xamee ne xale bi moo nekk ci dëgg xaala buur bi ne ko maa luy loolu lan nga may digal xaala mu ne ko taj moom da ngeen dajale annaasa nit ñi fii saidin waahidin ci benn pàkk na ñëpp ñëw di seetaan wa tax lu mu nii nga salab ma maanaam nga xeew ma ala jizin ci ab bant tàndarma nga jël benn bant tàndarma xeew ma takk sama loxo yi ñëpp di ma seetaan su ma xus topp nga jël sax man fett min kinaanati si sama tunkaar tunkaar mooy defukaay fett ci sama defukaay fet ngay jël benn fet ñëpp di gis su ma dax topp nga teg ak sama fett ga fii kabidil xaw ci digg xale bi nga teg ko ci digg xale bi mooy li ñuy sànni tegal fett gi ci digg xale bi su mu su mu xul topp nga wax bismillahi maa ngi commencé ci tur yàlla rabbil xulaami kay borom xale ba xam nga tuddloo na ko yàlla su mër nga sànni ma mu ne ko da ngay dajale ñëpp ci benn barab nga xeew ma ci bant sàndarma jël benn fett sama defukaay fett bi teg fett bi ci digg xale bi ne bismillahi rabbil gulaam maa ngi commencé sànni ci turu yàlla mii borom xare bi nga sànni su mar mi nga sànni ma fay naka naka yow isa faalta boo defee zaalika loolu xatal te nii nag ma rey ko boo defee loolu ci nga may mën a rey fa jamaa buur bi dajale annaas nit ñi fii saidin waahidin ci benn pakk wa sarabu mu sarab ko alaa jisin ci bantu sandarma su ma axasa topp mu jël sax man fett min kinaanati ci bantu fettam mhm. su ma wadaa mu teg sax ma fett bi fi kabadil xaw si ci digg xalaba ba comme ni ko xale bi waxee su ma xaal topp mu wax ngi commencé ci tour yàlla rabbil ghulam ki borom xale ba su ma top topp mu sànni xale ba fa waqaa tabbi asamu fett ba fi suduxi fi suduxi ci kaaba bam kaaba moy yax bi nek ci lakh bi diggante nopp bi ak fi yax bi xam nga fet gi dal fofu fo wada xale bi teg yeddoo loxoom fii suduxi ci kaaba bam mu daal di loxo ci kaaba bi nak fo maata mu daal di dee xam nga ragul de waaye bu njëkk ba nag ragaloon na mais nit day màgg bu njëkk ba dóor nañ ko ba mu boole sëriñam boobu màggagut waaye ba màggee dafa dellu ci yàlla moo tax bàyyi ne yonent ci yàlla euh, mu ko dàqee mu daw naa rabbi inni li ma anzalta bëgg naa mburu moom joxe mburu moo lekk bëgg naa mu ne boobu dafa màggagut waaye ba màggee rabbi arini anzur ilayka gis la taratul leneen lu may lu may boromam ku màgg mooy kii dellu ci yàlla pas kuy tiit parce que tiitaange dindu dara yow njàqare dal na la jafe-jafe dal na la yaa ngi jaaxle di tiit di triste wu loolu lu mën a dindi danga yokk fit mais dellul ci yàlla nga xool njàqare googu lan lay sàkku ci yow nga def ko njàqare sàkku lu mooy nga tuub mm-hmm. say bàkkaar mm-hmm. tuubal soo paree nga jaamu sa borom jaamu sa borom na sa loxo di ko ñaan te bul naagu bul découragé waaye bul jaax rek ndax jafe-jafe dafa ñëw pour delloolu ci yàlla mais ñëwu pour nga jàq jàq gi jariñul la dara mais dellu ci yàlla mooy jëfi ku mat ku matul nag lu ñëw mu tiit au mu jaamu yàlla ma nga fa nekk di xalaat ba julleem sa xamatul lu muy julli su ko defee njàqare ci kaw njàqare lay loolu du gaaw a dañ mukk doomu aadama ñeenti xaal la jamonoy xéwal yàlla li mu bëgg ci yow ci jamono yooyu mooy nga sant ko mooy dee ko xewal xéwal nga def ko ci lu neex yàlla waaye bul am xewal bew jamonoy natt li yàlla bëgg ci yow mooy nga muñ jamono boobu na nga muñ jàpp ne yàlla dafay faj sa roxo gu feebar gi comme ni ñu ko jàngee woon démb te bul naqarlu bul tiit dégg nga da ñaan yàlla nag di ko jaamu jamonoy topp yàlla gisal ne yàlla defal na la xéwal ndax am na ñeneen ñuy moo yàlla bu neexoon yàlla mu bool la ci ñooñu waaye mu bool la ci ñuy topp yàlla ci kàttanam ci mbaaxam kon yow doo ci dara bul bew bu dégg sa bopp santal yàlla ci may gim la may nga di ko jaamu jamono moo yàlla tuubal dellu ci yàlla ndax loolu la yàlla di sàkku ci yow waaye njàqare dundu dara moom ku yàlla may du tiit mukk lu mën a xew day xool la mu war a nekk mu dem nekk ca waaye du kokoy ki am sens kokoy ki nité kokoy ki ñox nga xoolal jamono bu nekk rek li nga war a nekk nga nekk ci xale bi nag ba màggee su firnde na la ñëw rek mu dellu ci yàlla ñaan ko ba mujj gi sax moo wax buur bi lu koy rey ngir xam ne bu ko reyee nit ñi dinañ gëm yàlla kon joxe na boppam ngir yàlla lii la diine jar ah waaye waaye léegi nit ñi tànk bu damm sax dina jarul leen su nekk nii boo doon aw ci yoonu mbaax bañ damm ci sa dànk sa mbokk yëpp jub da ko bàyyi nag doo fi rey sa bopp ah yow yaa yow waaw doomu aadama nit am nañ droit def lu la neex maandul parce que xamatuñu lan mooy maandu ñii moo yàlla nga ne tekk loolu mooy ñàkk maandu boo demee nag ba nit ñi fee wax te yàlla tax nga leen noppi leen ñàkk maanu gi gën naa ëppati nag yow defoo lu baax waaye yaa ngi tere lu baax léegi yàlla dafa war a jaral nit a jaral nit kon su ko defee nii la xale bi def joxe boppam fa qaala moo annaasu nit ba xale bi dee nit ñi ne aman naa ñun de gëm nañ bi rabbil gulaam ca borom xale ba xale bi dee ni ñi ne gëm nañ borom xale bi ñëpp daal di gëm yàlla buur ba nërmelu nag waaw buur ba ye fa di ñi dikkal almaliku buur ba fa qiila lahu ñu ne ko araayta ndax gis nga maa kunta la nga nekkoon taxdaru di moytu mhm. wallaahi maa ngi ci yàlla xat wallaahi maa ngi gën ci yàlla maanaam wallaahi maa ngi gën ci yàlla xat nazala wàcc na loolu moo doon dëgg dëgg wax ji bi ka si yow xidraka la nga doon moytu ñu ne buur bi maanaam rambaajkat yi moo tax buur bu nekk xam na saay saay yu ko wër di yàq rek ñu ne ko laa yow léegi la nga doon ragal li ma xam na nit ñi gëm nañ xat am na gëm naa naasu nit ñi jaxase ko askanam fa amara buur bi digle digle bil uxduudi ci ay kàmb buur gi nag gas leen moo tax force mosul régler dara doole mosul régler dara dafay yokk nit ñi féttërlu ak fépp rawatina nag bu dee dëgg dafa dugg seen xol doomu aadama bu dëgg duggee ci xolam boo ko bëggee jubban boo ko bëggee teg ci yoon danga koy indil dëgg waaye dëgg xol ba mu tàbbi ragalutul dara force bi bu gënee yokku daf koy gën a fippuloo caaxaan rek mooy nekk ci xolu nit nga indi force mu daw ko loolu dëgg wutoon rek waaye nit bu dëgg tàbbee ci xolam mhm. mbaax tàbbi ci xolom force daf koy gën a jugloo buur bi ñu ne ko nit ñi gëm nañ fa amara mu digal bil uxduudi ci ay kam mhm. bi af waaye sikkaki ci buntu mbedd yi mbedd mu nekk rek mu ne gas leen fa kam gu xóot fa xuddat ñu gas kamb ya wa udri ma ñu taal fiyaa ci kàmb ya an niiraanu bu ko defee mbedd mu nekk ñu gas fa sàmm kàmb taal fa safara wa qaala buur bi ne man lam yarjien ku bàyyiwut an diine yi ci diineem fa aqximuhu na ngeen ko bëttal fiyaa si safara si mooy sànni leen ko ci biir safara si aw xiila wala wax nañ la woon ñaan ko iqtaxim bëttal duggal maanaam taal leen safara yi ku gëmul rek ngeen jël ko sànni wala boo ku gëmul ngeen wax ko mu duggal boppam boo bëgg a métti nag dafa am ñu daf ku gëmut téye leen na dugg si biir safara na doxal ma dugg te nag wax ji loolu la niru bi ni jeexee dafa niru ne buur bi daf ne ku gëmut danañ mu dox ba safara si dugg lii tax na ni ñuy dellu gannaaw delluñ gannaaw lañ gën a dëggu ci lañ nekk parce que ci dëgg lañ mhm. Mhm. ku nekk ci dëgg du la tax a dellu gannaaw te doo ragal kenn ndax looy liggéey la yàlla mi borom mbindeef yi di ragal mbindeef moo xam ne yàllaa laa yilif loolu jaadu bu ko defee lii la buur bi def fa ñu def loolu ñu daal di gas taal di wax nañu dugg leen ni ñu di dugg gratuitement ndax des ak seen gëm mu mel ni dara xewul xataa jaar ba mu dikk imraatun jigéen ndeysaan Jigen dafa néew doole rawatina bu njabootee mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. dafay xalaat ay sama doom ji sama nangam wa maa an jigen jigéen ji sabiyun xale la ñeen ko jigen di ñëw yara ab xale fa taqa asar mu aliyar an taqa mu tabbi fiyaat safara si jigen ji dafa mel dañ koy xëcc muy alièr naan baleen ma bëggutu dugg wala dañ ko duggal muy daw bu dee di dugal jigéen ñi moom bañ koy xëcc di ko dugal safara si da doon fipp di alièr taqaasa mooy dafa taxaw tappet bañ a dugg wala boog dañ koy xëcc muy alière wala dañ ne ko dugal mu taxaw bañ dem fa taqaasan mu daas maanaam mu alière an taqaa ba ngir ragal a tàbbi fi safara ci fa qaala mu wax laa ñeeko alxulaamu xale ba lii ci karaama yi la bokk xalem ba mu yore moo wax ak moom ne ko yaa umma e yow sama yaay isbir yi mu ñeen dugg si safara ci ndax fa innaki naka yow la xaq yaa ci dëgg ku nekk ci dëgg du ragal mm-hmm. mu ko yow sama yaay ci dëgg nga nekk kon duggal ci safara xale bi moo wax ak moom. bañ ko bëggee sànni safara si muy daw xale bi moo wax ne ko yaa umma eh yow sama yaay isbiri yi muñal duggal dafa innaki ala xaq yaa ngi ci dëgg. Mhm. moo tax ku dellu gannaaw da nga nekkul ci dëgg boo nekkee ci dëgg ak situation yi nu mu mën a demee dangay ngay parce que dëgg bakkan daf ci war xaj na ci deret xaj na ci damm xaj na ci gumba xaj na ci ñàkk xaj na ci ñu tëj la xaj na ci boo ragalee loolu nag nooy jo awee si yoonu dëgg xale bi bu fekkoon ne xam na ne dëgg dafa war a neex du ko wax na ko muñal parce que yaa ngi ci dëgg dafa ko wax na ko yaa ngi ci dëgg te ku nekk ci dëgg mooy am nattu kon demal duggal ci biir nattu yi bëlaw nattu hmm? waaye wax dëgg yàlla boo boo xoolee da ngay xam ne ñu ngi ci jamono joo xam ni lislaam tollul fenn ci xolu nit moo tax jaralul leen benn coon kaso sax bu ñu la ko tëjee mbokk yëpp ñëw def délégation jeex na dootoo fi waxati dara waaye laaj li mu wax daf lu dëggam dee danaa dëgg la kay waaye sa yoon nekku si yow yàlla yónniwul la ci nit yàlla kay moo aaye nit gis lu bon te kenn aayewu ko kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluhu ne la bi sama kaanu yafaaluun na ñoo xam ne buñ gisaan ñuy def lu bon duñ ko tere yàlla nañu lu ñu luñ defa luñ defa bon bon ci penc mi ñëpp na ci teg yàlla ne ndaw lu bon mbon xam ne lu bon la nga ne ci dara yàlla ne la bi sama kaanu yafaaluuna jëf ju bon a ngi nii yàlla yónnu la ci nit te kuñ fi naroon yàq sa àll bopp nga jug jugloo sa njaboot rawaam solo na ko muslim imam muslim su ko defee hadis bi dafay jàngal muñ moom la alquran nettali qutila ashabul uxtuud rey nañ borom sa kàmb ya annaari zaatul waquud safara suñ taxal isum alayha quudun ñu ngi ci toog wahum ala ma yafaluuna bil muminina shuhud la ñuy def jullit ñi ñu ngi ko gis de wa ma naqamu minhum mbëgaluñ leen illa an yuminu billahi al aziz al hamid lu mooy ñu gëm yàlla mi nga xam ne nii mooy buur bu tedd bi bu ñu gërëm bi allazi lahu mulku samawati wal ard dañoo bàyyi ki moom nguuri as dañoo topp ki moom nguuri asamaan ak suuf kooku kay moo jar a topp ñu gëm ko ngeen bëggal leen ci loolu te yàlla léeg-léeg dana seetaan ay nitam ñu teg leen lu métti ngir wane ne mbaaxam dafa war a jar dara mbaax daf laa war a jaral mbaax daf ñoo war a jaral yàlla ñu yàlla teg ci yoon woowu mm-hmm. su ko defee mm-hmm, mm-hmm, ñu yem foofu firiwaat ko firi bu gàtt door a firi saraxa yu ndaw yi هذا يريد الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفع قد منك